Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. asalaamaaleykum mbokk yi xarit ñuy seetaan ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi rafetlu ak ànd bi ak Equivox TV comme ni ngeen ko gisee sama ginnaaw nag ñu ngi fii ci AS Dakar euh, Sacré-Cœur ci école de football bi fi nag li fi xew yaakaar naa ne ñëpp dégg nañ ko muy. Euh, Olivier Sylvain bi nga xam ne moo doon responsable de la cellule performance bu AS Dakar nag euh, doon euh, sàkku xale yi nga xam ne ñoo nekk fii euh, ci école de foot bi xale yoo xam ne dañoo am 7 ans jàpp 13 ans lu ëpp nag un an muy sàkku xale yooyu. kenn ci ñemewul ubbi gémmiñam dénoncé boobu la ñaawteef ba kenn ci ñoom rek moo mujj génn dénoncé ko fi mu toll nii nag Olivier mi ngi ci loxoy yoon. ñu ñëw fii nag ngir waxtaan ak ñoom mais ñi nga xam ne ñoo di responsable yi nekk ci biir nanguwuñ benn yoon euh, journaliste yi am accès ci biir euh, école bi. tax na rek euh, taataan nañ kàddu ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci bile gox rek ñu daal di joxe li nga xam ne mooy seen xalaat ci boobu le bu ko defee rek ngeen daal di topp ma. ah man da xaw ma kuy kooku waaye bu fekkee ne loolu moom am na moom bu fekkee ne loolu am na moom doy na waar doy na waar lool waaw jaboot bu ne ne war na koo métitlu ndax dëkk bi moom. daa tar waaw surtout maa ñun ñi nga xam ne njaboot bu jigéen rek la ñu yor waa kon ñun ñëpp war a tiit waaye bu fekkee loolu am na moom def na lu ñaaw def na lu ñaaw wax dëgg fa yàlla ah bu fekkee am na daal doy na waar Mariama Diallo daal bu fekkee loolu am na doy na waar lool te war nañ koo gestu nag ba teg ko ci yoon ndax dëkk bi moom am na yoon dëkk moom dëkkub luwaa la donte li muy li muy critiqué lépp dëkkub luwaa la moom. waaw ah, man démb ci ngoon laa ko yëg. franchement bi ma ko yëgee mu nekk lu ma métti parce que am na loo xam ne daa rafetul surtout ñun africain yi donc nit ko weex jóge fële ñëw jënd terrain def ko ba pare jël ay xale bi leen sakku fa ñaaw daal ci sama gis-gis dafa ñaaw tey kooku day joxe exemple boo xam ne nii bu ëllëgee nit day am action sax pour def lu mel noonu mais ñun dañ ko war a bañ parce que ñun amuñu dalu ñu suñu bopp tey terrain yi bari na bu dul fii doon feneen mais nit sa ngor ngay demee. alal bu mu la ko jaral bëgg a réussir bu mu tax nga wanteer sa bopp te fii ñu bëri buñ ko nangoo tey loolu moo ko indi pour réussir kese moo tax mais du question que dama bëgg a football wala dama bëgg def lii wala quoi que ce soit mais en tout cas ñaaw na daal sama gis-gis ñaaw na trop man moom dama ko ñaawlu personnellement rafetul daal. ñoom dañoo ñëw fii pour jàng football donc ils sont pas venus pour que ñu leen di violer di leen def yooyu tamit loolu day indil mauvaise réputation suñu école te lool dina inquiéter parents d'élèves yi. un coach qui a violé sept garçons et il les a dit qu'il va les amener dans un tournoi. c'est des U13, les a violés. On a appris ça hier. C'est de l'injustice, madame. Oui. xanaa ñu bàyyi ko rek te xam ne àddina bi dafa jeex ba pare dara jaru fi dara te loo gis nañ koy rafetal ndax nit li gaa tax kenn dëkku fi dañ ciy def mission donc bu jeexee dañuy delluwaat fa ñu jóge waaw te tag am na loo xam ne nag dem ba taxaw suñu suñu kanam suñu boroom nag ngay xiin xiinal am na lu ko gën dañuy rafetal te xam ne àddina amul solo te ku nekk moom boo dee dem foo xam ne doo ñëwaat yóbbaale du doy waaw fii moom dañ fee jaar jàll rek mission dong la nañu rafetal rek te xam ne yàlla moom noppi na waaye li ñuy def moom ñaaw na surtout ñun ñi nga xam ne njaboot gu jigéen dong la ñu yor da ngay xëy 4 heures du matin balaa ngay duggal sa kër 7 heures wala 8 heures du dal ñaaw teef yi moom bari na lool lool sax waaye na sant yàlla rek lépp moom dina baax incha allah. je trouve pas normal qu'un coach viole sept sept sept enfants en plus ici ça ça va donner une mauvaise réputation à notre école. ah oui c'est pas ah normal. xanaa ñu dàq ko tëj ko prison parce que c'est pas normal. appel de mort c'est pas normal. je crois dix ans. dix il mérite d'être enfermé en prison parce que c'est pas normal de violer sept joueurs alors qu'ils sont venus ici pour pour être formés et devenir des joueurs parce ji nit daal dafa luus nit dafa lëndëm nit kenn mënu koo xam waaw nit man na laa woon lii fekk la nekke moom moom moo ko xam waaw ndax loolu privé doomi aadama la nit daal dafa lëndëm waaw waaye nag waajur tamit nii dong la ñu mën def parce que tamit boo wóoloo nit bëgg sa doom am situation boo gisee fu baax da nga ko fay yóbbu parce que yaakaar rek nga am waaye nag li ciy topp moom ka kay gérer moom moo koy xam moo tax dëggu doo nga wóor waaw dañoo war a dëgg doy na waar te bett na waajuru xale yi ndax foogu fooguñu woon lii ci moom. non na yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam lu ci war rek dañ ko def ci moom parce que man dégg naa arrêté nañ ko mais nañ teg ay sanctions yu métti ba keneen doom accepté pour def ko. man bi ma ko déggee dafa nekk lu ma métti parce que da ngay ne nekkul si la première fois donc yàgg na ko def yàgg na ko def day doog a feeñ mais nag na yoon def liggéeyam comme ñun am nañ loi na loi def yoonam na def liggéeyam ko man dama fiy ñëw tout temps di jël samay doom. prison prison prison ah combien d'années dix ans dix ans voilà chers téléspectateurs d'Equivox TV ñoo ko gisandoo ñi yeewoo ci bile gox rek daal dina ñaawlu bile mbir tey euh, sàkku rek euh, yoon def liggéeyam bu ko defee ñu ngi leen dox dig daje beneen yoon ci yeneen thème. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.